salaamaaleykum à tous les internautes ak yéen ñi nga xam ne ni yéen ay safoo Rufisque Sénégal TV ñi ngi am fii mbégte teew fii si benn édition spéciale focus sur li nga xam ne ne mooy la situation de la réhabilitation du stade Ngalandou Diouf de Rufisque coow li bëri na wax ji bëri na version yi tamit bëri na moo tax ñu dalal fii ki nga xam ne ne mooy le manager général de AGEL mi nga xam ne ne jot naa teewee rencontre yi nga xam ne mairie jotoon na koo def ak les parties prenantes ak les parties décidantes par rapport à la réhabilitation du stade Ngalandou Diouf ki ñu fi dalal tey mooy monsieur Samba Kor Cissé Samba maa ngi lay nuyu grand. maa lay nuyu maa ba yaa ngi am jàmm. waaw maa sant bu baax. nag euh, journée bi ak entraînement yi. ça va tranquille on est là ñu ngi. leen di féliciter si victoire u AJEL. merci beaucoup. Ah. merci beaucoup c'est gentil. kon na comme ni ma ko waxee cher internaute tey on va un focus sur. la réhabilitation du stade Ngalandou Diouf grand réhabilitation stade Ngalandou Diouf jur coow lu bëri wax ji bëri na version yi bëri na qu'est-ce qui s'est merci beaucoup merci beaucoup si question bi di nuyu ñëpp ah, di nuyu internautes yi ñi nga xamante ngi suivre euh, télé bi bon di nuyu àdduna en quelque sorte parce que je pense que télé bi mu ngi commencé dem fépp si àdduna. donc euh, du coup ñu ngi nuyu ñëpp daal di di di di di jaajëfal ñëpp aussi. waaw kon grand. grand bëgg a nuyoo nga ma bàyyi la nga expliquer ñu comme ni ma ko waxee sànq. Mhm. version yi bëri na mais tungu na du teew ñuy nataal. Mhm. quest qui s'est passé. effectivement je pense que man bokk naa ci nit ñi gën a habilité pour wax si loolu te wax si nag mu nekk ay wax yoo xamante ne. dañ koy wax mu nekk dëgg waxu dëgg te yal tax. Mhm. parce que là on est des responsables. Mhm. ce qui se passe là actuellement c'est pas c'est pas normal te man miy wax ak yow je te dis directement si je savais que ça nii lay demee peut-être que am na yoo xam ne du ma si dugg. doo léegi ñëwal ñu si historique gu réunion yi. waaw initiative gu réunion yi. boo xoolee sax concernant je parle pas des nawetaan je parle de ñun ak Tëngéej FC donc de au début au lendemain des choses donc euh, c'est man c'est Maxet qui m'a interpellé par rapport à à ça moom moo ma interpellé na ma bàcc ma ne ko waaw mu ne ma stade bi nañu xool nu ñu koy defaree. Paco boo si boppam Paco Boy si boppam moo jël téléphone am parce que man j'étais tellement énervé j'étais tellement. perdu que man comme nit ñi niñ doon def laa nekkoon nekk di wax si affaire bi nan la demee mhm. donc moom Paco Boy personnellement moo ma interpellé na ma gis nga bàcc mbir bu amee surtout mu nekk ay yàq-yàq yu yu demee nii wala kii ñun ñëpp a mer mais lii gën a am importance mooy ñu focus si lu ñu lañ war a def pour stade bi taxawaat c'est Paco Boy qui m'a interpellé donc bi ma interpellé aussi ma première réaction mooy interpellé waa Teungueth FC et eh, bi ñu demee en réunion je l'ai dit et je l'ai répété man maa interpellé man personnellement maa interpellé Baba Babacar Ndiaye du Babacar Ndiaye moo ma interpellé. Mm. man maa interpellé Babacar Ndiaye. Samba Korda Agel moo interpellé Babacar Ndiaye président Teungueth FC. loolu kenn du ko dindi. Mm-hmm. Badou aussi. man maa ko interpellé. Badou Dia Badou Dia. secrétaire général de. te bi ñu demee je prends en témoin qui que ce soit. bi ñu demee en réunion il l'a répété ne coordination bi yëpp man maa ko commencé. yow Samba Kor man Samba Kor man maa commencé la coordination ak Badou ak Babacar Ndiaye Badou man maa ko jox rendez-vous stade le lendemain des dégâts à 10 heures bi ma ko joxee rendez-vous au stade ñu waxtaan ma ak moom. mu ne ma ñoom sax commencé woon nañ ba woo nañ ki war a defar terrain gazon beeg affaire yooyu yëpp terrain ba réparer gazon beeg yooyu yëpp mhm. ba wax ma moom personnellement ne may nañu ay chaise may nañu ay gazon mhm. par l'intermédiaire de CRSEC que je remercie de passage mhm. mu ne ma même ay chaise maître oh, am na ay chaise yu nekkoon Thiès Babacar mu ngi toppatoo chaise yooyu pour ñu may ñu ko mais on applaudit su fekkee noonu la demee. donc le rendez-vous stade la njëkkee pas mairie. Mhm. rendez-vous bi c'était ñun ak waa Tëngéej se ak ki war a defar stade ñoo àndandoo ñun ak moom ñu wax ne lii la ñuy def lii la ñuy def lii la ñuy def. ka mhm. on a dit ça donc le gars ñu def visite ak moom il est rentré dans les vestiaires def ne lii. ak lii ak lii ak lii ak lii la def. terrain bi comme que terrain bi man xaar te gazon bi mu ngi fi il te dañu may gazon bi il va commencer si gazon bi bu koy liggéey di ko liggéey la nuit. Mm-hmm. y' a pas de problème y' a pas de souci jusqu'à présent. Mm-hmm. mais après les choses se sont passées autrement donc ñu woo ñu à la mairie. bi ñu demee mairie aussi man du ma wax waxu keneen. man li ma fa wax laay wax. man personnellement maa jël engagement. que ne ñun AJEL on se range derrière Tëngéej FC. répété ko. man maa ne ñun AJEL on se range derrière Tëngéej FC parce que Tëngéej FC c'est l'équipe fanion de Rufisque. Mhm. tey ñun. ñoo topp si Tëngéej FC. ñi ñu toppee si Tëngéej FC noonu la ñuy toppee si ginnaawam par rapport ak travaux yi ñuy def si stade. ñun on attend que ñoom ñoom ñu envoyé ñu devis waxu ñun ñu waxuma ñun ñu defar devis. ça a été très clair et je prends en témoin ñi fa nekkoon bëri na waa nawetaan li may wax bu amee kenn ku si mën a weddi mu ñëw weddi ko. wala mu weddee ko fu mu ko neexee. man. bi may wax loolu le père de Paco était à mes côtés. bi ma koy wax du moo kenn wax loo ma ko. man maa jël samay responsabilité wax li ma gëm. ne Tëngéej FC moo fi ne. moo nekk en si élite bi. moo nekk l' équipe donc ñun ñoo si topp ay travaux stade. bu ñu koy def parce que ñun ñooy war a compétir daar daar si stade. donc j'ai dit ñun Tëngéej FC dañuy topp si ginnaawam. le SG mu nga fa woon bu maire yi le euh, comment s'appelle encore. Euh, fils Mbaye euh, le le fils du président je perds son nom Adama Adama Niang. Mhm. mu nga fa woon. waa nawetaan ñu nga fa woon. y a d'autres yoo xamante ne ñu nga fa woon. ok loolu ma wax noonu noonu laa ko gëmee woon te musuma si bouger un iota. le lendemain des euh, bi ñu jógee mairie. Mhm. le lendemain Paco a envoyé ñoom ils ont envoyé un devis. un devis de. le devis je vous je me rappelle. le devis si waa Tëngéej FC la jógee ñëw si waa AGEL. Mhm. si à l'occurrence man. ok c'est Badou ou Babacar Ndiaye je ne sais pas les deux am na ku ma ko si envoyé sur WhatsApp. ok ma répondre que bien reçu les images sont la mu nekk une somme de onze million et quelques pour la rétablir euh, li ñu waxoon ne moom la ñuy def. la réhabilitation. le kii bi nu mu ti devis bi mu ngi ak man li nga xamante ne waa ji war a defar stade. moo def le devis signé. ok te bi ñu toogee à la mairie j'ai été très clair. parce que ñoom njëkk nañ ma envoyé un devis écrit par WhatsApp. Mhm. man aussi j'ai euh, répliqué na leen kat je n'ose pas jël devis bu ñu envoyé sur WhatsApp c'était une somme de dix-huit millions et quelques di ko envoyé qui que ce soit ki nga xam ne mooy defar stade bi na def un ak ñu devis bi mënta mën a tal mu nekk un devis signé mhm. loolu man maa ko def te bi ñu demee maire aussi je l'ai répété devant Badou Dia devant tout le monde. ma ne ko devis boobu ngeen ma nga ma envoyé loolu rek mooy li ma li nga xamante ne. amul concordance par rapport ak li ñu waxoon moom aussi mu nangul ma ko foofu donc le surlendemain ils m'ont envoyé un devis signé par kii war a defar stade un devis de onze millions mais biñ ma envoye devis bi j'ai pris le devis ma envoyé ko à qui de droit parce que aussi je le répète du sama xaalis moo dem Paco Boy moo am volonté pour defar stade bi tey dañ ne Babacar njaay moo defar stade bi au nom de Tëngéej FC. Paco Boy moo ko bëggoon defar moo si bëggoon def xaalisam au nom de AGEL. c'est ça la triste réalité du dëgg. Babacar Ndiaye moo bëggoon a agir au nom de Tëngéej FC Paco Boy bëggoon koo feelu au nom de AGEL. c'est ça la triste réalité te yow nee nga AGEL dérangé wu si ginnaaw TFC. Tëngéej FC ok. bi ñu defee loolu après il y a les communiqués qui sortent de partout des gens moi je dirais irresponsables parce que tey bu fekkee mbir dafa am. tey bu benn club communiqué est-ce que comprendre je pense que pour faire la part des choses war nga xool beneen côté bi mais quand tu prends sa di bind si si si si réseaux sociaux yi loolu loolu ñoom ñuy def. muy communiqué de presse wala di def non mais ñun mën nañ ko mais ñun du ñu communiqué loo xam ne amul. ils ont quand l'argent est venu ñoom devis bi bi mu ñëwee moi je pran en témoin lu may wax dama naa je prends en témoin sept personnes. samay wax du ma ko sànni. je prends en témoin Adama Niang je prends en témoin le SG. le euh, début bi bi mu ñëwee. Mhm. le lendemain il est le euh, Paco a envoyé l'argent c'était on le début c'est million e et quelques. Okay. il a envoyé sept cinq millions et quelques la moitié. Okay. tout juste il l'a envoyé moom bëggul sax mu ëpp. wala mu wàññeeku comme que li ñu waxoon. bëggul mu ëpp bëggul mu wàññeeku. donc il a envoyé les cinquante pour cent du débit. voilà donc biñ koy aussi. Badou était au courant que ñu ngi dem mairie pour yóbbu l'argent mais à ma grande surprise la mairie ne ñoom du ñu jël xaalis. ok c'est comme ça que ça s'est passé ñoom ñu ne du ñu jël xaalis mais si toutefois que bëgg nañ defar leneen ils m'ont fait d'autres propositions biñ ma defee d'autres. propositions dañoo la def d'autres propositions. mairie moo ma def d'autres propositions moo la defal d'autres propositions. ne ma comme que waa Tëngéej FC e ñu ngi dérouler ñu ngi defar est-ce que doo leen jël est doo leen def beneen pàcc bi baal ma waa mairie bi sa la sukkandiku ba ne waa Teungueth FC ñi ngi def ñi ngi commencé nañ euh, dérouler ñu ngi defar stade bi waaw moom laa la wax xam nga man du ma je ma wax waxu liñ liñ ma wax. liñ la wax waaw ok continuer quoi continuer léegi. léegi waa waa mairie waa mairie waa mairie orienté la ne la léegi. ne waa mairie orienté ma ñi ngi déroulé di defar stade bi. ñi ngi déroulé di defar stade. waaw. j'ai dit ok mais maintenant Pa Aliou Ndiaye mi ngi toog foofu man j'étais à l'entraînement. Mhm. je parlais avec euh, Adama Niang. Mhm. mu wax ma ne ngeen defar ngeen léegi yéen ngeen jël beneen tribune bi ngeen peinture ak parce que tribune boobu mu ngi délabré ma ne ko ok. mu ne ma stade bi aussi dafa soxla arrosage. moom mooy wax de dafa soxla arrosage. waa mairie. donc tey te ak ah, tey bu ñu amee système d'arrosage bu baax am ben machine boo xam ne ça va coûter dans les quatre millions et quelques man je connais pas la machine. si je donne des chiffres si ñoom laa ko déggee. quatre millions et quelques est pako que Paco bu defoon loolu ce serait pas mieux. Moi, j'ai répondu à Adaman et à Badou. En premier, Badou aussi m'a rendu compte que ñoo waa mairie wax nañ ko loolu parce que man lu si ne rek comme que dama ne woon dañuy ranger si ginnaaw Tëngéej FC. Mhm. lu si ne bu ñëwee xaalis bi bu mu ñëwee j'ai appelé Badou ne que ñu ngi dem. Mhm. mairie pour joxe ko. bi ñu demee mairie ne duñ ko laal bi ñu ma defee yeneen proposition je l'ai dit à Badou. Mhm. Badou mën na ma témoigner. Mhm. Adama Niang bi ma waxee loolu li ma ko répondre aussi je le dirai je lui ñett euh, defuma loolu laa ko wax. parce que tey comme que ñun dañ taxaw devant tout le monde devant ay responsables ñuy suñu kilifa muy waa maire. Mhm. ñu ne ñun on derrière Teungueth FC. Mhm. les nawetaan étaient là-bas. tout le monde était là-bas. on a dit qu'on derrière Teungueth FC. non ba ba fi may wax ak yow ñii loolu duñ si bouger ya y' a de onze millions et quelques ya y a des communiqués que ñoom def nañ si dix huit millions ou quoi même bu nekkul seen signature. Mhm. ils n'ont pas démenti. Mhm. man ça me concerne pas. li ma gëm mooy dañuy topp seen ginnaaw. xaalis bi yéen nee ngeen doole ko jël est léegi wax leen ma nan la ñuy def. waa mairie waa mairie ñoo ne duñ jël xaalis wala waa Tëngéej FC ñoo ne duñ jël. non non non waa Tëngéej FC ba léegi waxu ñoom ñoom waxu xaalis. waa mairie ñoo waa bi parce que man dama jàppoon ne. ñoom bu ñu nekkee suñu kilifa. woo ñu pour dajale ñu. wax ne nii la ñuy defee nii la ñuy defee. et que daa ak yi nga xamante ne mooy moo ñu ne Adama Niang mooy suivre tout ça. lépp lu si waay di def. na na na dem si moom. Mhm. moo tax aussi ñu suivre logique boobu jël les cinq millions et quelques jubal si moom. Mhm. parce que bu ko neexee mu ne mairie duñ jël xaalis. Mhm. mais man expliqué naa ko nee naa ko Adama Niang man maa ko wax Adama Niang. tey lii du xaalis bu ñu jox waa mairie. yow yéenay suñu kilifa tey y un problème. tey devis mu la waxoon. devis bi mu ngi nii la moitié mais dañ la koy jox nga jox ko waa Tëngéej FC wala nga ne ñu yow jox leen jox ko waa Tëngéej FC. waa mairie bi ñoom ñoo ñoom yow danga nga bëggoon soit waa mairie bi réceptionner l' argent. lu officiel lu officiel voilà la mairie moom moo gérer lépp li nga xam ne mooy stade bi. si tuteelam la nekk. voilà léegi bu la bu ko mënulee réceptionner moom mu dem orienté la si Tëngéej FC ne la dama jox ko du moment où que ni. Babacar Ndiaye président technique FC moom commencé nañ les travaux. voilà au niveau du stade. voilà comprendre nga. voilà ok man. c' était mon but. c' était am nañ kilifa fa la ñu waxee woon. Mhm. tey bu ñu jëlee xaalis di ko joxe nañ dem ba si ñoom ñu teg tekk seen loxo. léegi yow ne bu ñu ko tegee seen loxo aussi ne leen jox leen ko waa Tëngéej FC mu am décharge. ok wala ñu ne ñoom ñu ne ñu jox leen waa Tëngéej FC ñun ñu jël jox waa Tëngéej FC wala ñoom ñu ne ñu dem leen ngeen fay. ki nga xamante ne moo leen defal dévier ñaam ñëpp. ok mais ñoom ils n'ont pas pris aucune responsabilité par rapport à la ça. la mairie n'a pas pris. ou la... par rapport à ça. loolu ngay dénoncé mairie bi jël responsabilité jëlu si responsabilité du ma ko dénoncé dama leen koy nangul. nangul man ni ma bëggoon mu demee ko. ak ñoom ni ñuy demee parce que ku nekk ak sa procédure ñoom seen procédure lañ doxe donc man aussi dama leen koy nangul. donc et le loolu bi mu amee. Mhm. pour won la ne si sama logique laa nekkoon ba. fi may wax ak fi ma doon wax ak yow. j'ai mon téléphone j'ai appelé Badou. je lui ai rendu compte de ce qui s'est passé. et je lui ai fait part des communiqués yi ñëw et ça ne plaît pas. mais communiqué yi ñu taxaw si communiqué yi xam nga dafa am lu ñuy woowee Facebook amut couvert dafa am communiqué yoo xam ne c'est officiel mooy via les pages des des clubs. Agel démb bi mu gagné 3-0 si page am dañoo posté Agel gagné na 3-0 donc c' officiel Teungueth FC si page u euh, officiel wax na li nga xam ne ne commencé na koo def si stade bi ba remercier ñi mu si war a remercier léegi communiqué yooyu noonu si page officielle yi nga ko gis wala si si réseaux sociaux yi di de manière générale. Ah, ok moi je en venir là aussi wax fi li ma gëm. Mhm. dama ne. Mhm. Teungueth FC bu fekkee ñun am nañu ngoru. taxaw na leen topp nañ seen ginnaaw si lépp. Tëngéej mhm. FC bu fekkee man par ma voix amul lu ma si def te jëluma sama téléphone j'appelle Badou. Mhm. amul tey bu loolu amee. Mhm. je pense que tey man bu doon man boobu. tey bu fekkoon agel la. tey képp ku communiquer. si beneen page wax sa xalaat sur Rufisque wala quoi que ce soit. man bu amul je vais démentir directement à la minute près je démentis au nom de Agel signé et tout je démentis. Mmh. mais buñ lay waxal te démentiroo mais yow li ñu wax noonu da ko gëm. loolu mooy dëgg ay nit bu ñu ànd nañ ànd si dëgg. bu bu ñuy waxtaan nañ waxtaan si dëgg. dama ne ñun suñu goree ba ne ok. on se range derrière Teungueth FC au vu et au su de tout le monde wala ñi ko war a dégg wala ñi ko bëgg a dégg mhm. parce que fii mën nga wax tey ku la bëggul dégg du la dégg mun mhm. naa wax lii ba pare am ñu may saaga mhm. te li may wax yëpp te ñoom dañuy xam ne li may wax nii dara mënu si daj mais léegi lu tax yow mënoo nangu ne lu ñu posté si page officielle club bi nekkul lu officiel loolu waaw ok waaw ok baal ma. voilà léegi baal ma wax waaw baal ma répété waat. parce que comme que dañuy wax si télé. baal ma répété waat j'ai mhm. je répète. Mhm. dama ne. Mhm. tey su fekkee ñun wax nañ ne bootu nañ si ginnaaw Tëngéej FC. au vu au su de tout le monde. tey bu fekkoon Tëngéej FC dañ ñu jox benn ñoom ñoo ñu jox divi. devis bi même bu nekkee onze millions. ñun bu fekkee un million lañ ci joxe sax war nañ wax ne ñun ñoo joxe ndoo yëpp onze millions yi. ndax vous êtes rangé derrière. waaw que dañu rangé derrière te rangé ñu derrière rangé boo xamante ne rangé wu naa feexal parce que dañ ko wax fañ ko war a waxee. man ma doxee que nañ ko war a doxee parce que je je suis mieux placé pour parler de ça. vous êtes mieux placé pour parler de ça léegi. nee nga cinq millions sept cent mille cest dire la moitié du devis de onze millions xaalis bi mi ngi fii toog li tax xaalis bi peut-être Teungueth FC jotagu si wala waa kenn wax la wala kenn waxagoo leen ne joxe ngeen c'est parce que da ngeen bëggoon a jaar si mairie bi mi nga xam ne ne yéen ñëpp moo leen kilifteef boot leen moom avant avalam munoo leen dara def dara si stade bi moom moo leen oon convoqué leen toog leen si table donc jël ngeen xaalis bi yóbbu ko si mairie bi pour jox leen ko pour ñoom ñu mën a jox ko euh, ñi nga xam ne ñooy gérer la réhabilitation des stades léegi nee nga waa mairie nee nañ du ñu encaisser xaalis est-ce que pare ngeen pour suivre seen logique bi ngeen wax mooy vous vous rangez derrière Tëngéej FC ngeen dem gis waa Tëngéej FC ne ah ñun de gis nañ ne tàmbali ngeen suñu barkeeloo ngi nii ndax stade bi su baaxee ñun ñëpp la baaxal. non je suis désolé man c'est pas à moi de prendre cette décision. c'est pas à vous de prendre cette décision. c'est pas à moi de prendre cette décision mais man am naa sama avis. sama avis du ma ko nëbb mhm. sama avis mooy ne ñoom ils sont en train de faire les choses ni ñu koy defee y a des communiqués yoo xam ne dañuy fustiger Paco Boy mi un certain budget à Dubaï mmh. communiqué de presse ba pare ñoom ñu gis ci turu ak Tëngéej FC ci suuf même si c'est pas signé mmh. ils pa pas démenti ils n'ont pas donc de ce fait non man je me range plus derrière Teungueth FC amul amatul sens ça n'a aucun sens amul sens parce que tey je pense que tey bu ñu dem ba am na loo xam ne dafa ëpp tey Paco Boy ku ko par exemple ku ko. gërëmul ku ko gërëmul. parce que ba muy comme ba muy nekk ci stade bi di def ci stade bi yàgg na. Mhm. Paco Boy lu mu defoon ci stade bi fii amul. tey bu fekkoon nañ saccagé nii sax mu toog fi mu toog deful mais tout le monde doit applaudir ba léegi mais ay nit bu nekkee na nekkin bi rafet na nekkin bi rafet. Mhm. parce que man tey je di dis et je tey bu fekkoon dañ kenn ku mu mënti doon koo mënti doon si àdduna nga def communiqué de presse ba pare def turu Agel si suuf fustiger. un soi-disant qui que ce soit même boo du bu dul nit boo tuddee Tëngéej FC à la minute près billahi wallahi taalaay à la minute près ma démentir ko surtout kooku bu waxee ne dafa topp sama ginnaaw dama kay démentir tey gis nañ seen communiqué ils ont fait une communiqué def nañ ko wala defuñu ko. non bu signé si non attends non si. waaw oh, dafa waaw dama lay wax si mbirum presse. waaw même moo expliqué la si mbirum presse. vas-y ok sànq dama la wax benn affaire mooy dama ne la am na loo xam ne ni mun nañ ko communiquer mais kenn si wu ko li ngay gis ni yëpp ni ñu koy gis donc mun nañ basé wu ne ay rumeur la. waa xaar xaar moo la waaw dama lay wax ba pare après nga jox ma sa appréciation nangu naa. Mhm. léegi ni ma la nangulee nga joxe sa point de vue. waaw voilà nangul ma expliquer la xam nga football boo may expliquer football. du ma weranteeg yow parce que mhm. man maa yaa ma ko gën a xam fukki jon mais jàpp naa ne am naa ay aptitudes yu ma jot a xam. dama ne la. page officielle seen seen page officielle Facebook binduñu ko léegi nag communauté de presse bi mën naa nekk dëgg waxuma ne du dëgg de dama ne mën naa nekk dëgg yow léegi dangay ngay xaar un démenti de leur part léegi joxel sa point de vue man dama la doon wax ne la ne est-ce que doo si doo leen jox présomption d'innocence en attendant d'espérer voir un démenti foofu rek laay waxee. dama ne dama ne. Mhm. am na communiqué. boo xamante ne tout le monde le voit si page u Teungueth FC. ñuy wone li ñuy def si stade bi. Mhm. est-ce que tu as vu une seule fois ñu citer le nom de Agel. quand il cite le nom de Agel c'est toujours pour dire que Agel n'a n'a pas encore réagi ou n'a rien fait alors que ñi nekk si bopp bi ils savent ce que Agel lan la procédure bi demee. dama ne beneen bi aussi lima ma wax. mooy li ma gëm. Mhm. xaw ma presse. Mhm. d'accord xaw ma presse. c'est très normal. Mhm. mais dama ne ànd dafa am noo xam ne noonu la war a doxee du presse du football du leneen. bu ñuy football aussi bu ñu àndee bu ñuy football dañu war a ànd si dëgg. dañu war a football ci dëgg. dama ne man j'ai donné l'exemple de Hachel. si ma gis benn communiquer ak fu mu mënti jóge bu wax ne Hachel ils ont mis par exemple cent million ci stade bi. et que ñoom dañ toppoon si ginnaaw Tëngéej FC mais Tëngéej FC ba léegi je le démentis sur le mot stand dama ne tey wax bu jibee wax bu jibee non attends boo ko da nga koy démentir loolu laa wax mhm. c'est-à-dire que nous nous lu tax communiqué wu ñu ñun mënuñu ne dañ topp si ginnaaw Tëngéej FC ba pare ne dañuy communique mais tey am na loo xam ne mais buñ ko gisee tey yaa yaa a quelqu'un qui a parlé de ce qui s'est passé mais kooku li mu wax mooy dëgg noonu la demee li mu wax loolu mooy dëgg c'est-à-dire que dañu toog ñu waxante waxante si bureau mais mu am ay témoins bu fekkoon dañ ko waxante fa la stade wala ñu waxante ko si coin tey su ma waxee ñu bëri mën nañ ma weddi mais dañ ko waxante bureau mairie mu am ay témoins ñoom ñu envoyé ñu un devis boo xam ne c'est à bon et due forme devis bi am chiffre bu si ne ñu ne devis total onze millions si je me trompe onze millions cinq cent xawma et quelque xam nga loolu yëpp c'est officiel ñun ñu communiquer ci loolu parce que ñun ñoo wax ne ñun ñoo topp ci ginnaaw mhm. te ngay def see te su amoon volonté pour pour jot si xaalis bi mais dañ ciy jot. loolu aussi mënuma si wax parce que ku nekk mënuma nekk si xel nit xam lan mooy li nga xamante ne mooy li ma mën a wax. mooy ne que les gens fekk ay nit ñu baax ay nit ñoo xamante ne yàgg nañ di def nit ñi di gis. Mhm. tey ñu am volonté def. te niñ koy defee bëgg ko teg si yoon bëgg ko jaaral si yoon que les gens fustigent man li ma metti mooy man man je fais pas de Paco une fois de plus. non oh, projet Paco moom duñ si dugg parce que tamit nit. voilà non non mm-hmm. may ma foofu rek. Mm-hmm. dama bëgg je défends qui que ce soit. Mm-hmm. je défends qui que ce soit. non man laa doon fekk si de. voilà laa doon fekk si de dama bëgg ma waxal ko sama bopp. waaw waxal ko sa bopp kon. je défends qui que ce soit. Paco bu deful woon lu ma war a def bu ma toogee fii je le ni ma ko war a wax mhm. comprendre nga mhm. tey bu ma toogee di wax si moom par rapport ak stade bi dama si war a wax mhm. stade bi ba si Paco nekk di def nañ ko nangul loolu nangul sa nit xaw ma nuñ koy waxee nangul sa mbaax moro wàññiwul sa mbaax dara mais quand les gens écrivent war nañ xoolaat li ñuy bind mu nekkul lu officiel si waa Tëngéej FC sax même que bind ay nit dañuy xam ne ñoom ñëpp fii lañ dëkk est-ce que comprendre nga ki bind xam nañ ko bu baax mais quand il écrit di bind ay naa professionnel bi nekk Dubaï booy bind aussi da ngay am fit bind li nga bëgg a bind bind turu nit ki foofu laa doon waxee ok nangul naa la grand Samb Cor euh, cher internaute lii lañ leen indiloon tey Euh, waxtaan li nga xam ne ne mooy édition spéciale bi tamit ne woon lan mooy dañoo gis euh, actuellement il y a beaucoup de bruit par rapport à la paternité de la réhabilitation du stade Ngalandou Diouf waruñu woon si fii loolu la Samba Koor wax waruñu woon agsi fii moom la waa dëkk bi yëpp di wax parce que lan la ñoo bëgg a defar benn dara ñun ñëpp dañoo bëgg a tabax kër wante man rek maa war a tabax loolu newul woon seen objectif coow li bëri na Samba indi na sa version des faits ñi ngi xaar yeneen partie prenante bu ñu bëggee tamit ñun waa Rufisque Sénégal TV mën nañ déplacé wu ñoom ñu joxe seen point de vue mais li am solo mooy na Tëngéej gagné li am solo mooy na Tëngéej am ndam ñun ñëpp ñu bokk ndey bokk baay asalaamaaleykum wa rahmatullah